sol jël département Mbacké pour ubbee ci campagne dem na ci sëriñ bi muy sëñ Muntaxa Basir mu ñaanal ko boole ko Cheikh Bass Abdou Khadre mu dem ci barabu sëñ Touba pour ñaan fa ginnaaw bi mu liggéeyee liggéey bu rëy bi mu liggéey tey kon jàpp naa ne président Macky Sall jóge fi fii mënoon naa dem Ndakaaru mu tëdd ndax tey jii li ci xolu sëñ ak yoonu mu ni mooy Macky Sall mu gagné dès le premier tour mu door gaa yi jël boo xam ne du am benn werante kon sunu candidat mooy candidat bi man mooy candidat bi gën mooy candidat bi am bilan mooy candidat bi yaru mooy candidat bi dul tontonte mooy candidat bi nga xam ne saagawul kenn te du fayoon te saaga tey bilan la am bilan bo xam bi dafa naan mënuma koo lim Ila Touba doy na ci terre bi doy na ci aéroport dañ Ndiass doy na ci bourse familiale doy na ci PUDC doy na ci donc kuma lim limu def lépp tay liñuy wax nit ñi nañu mobiliser fortement ñëpp nañu jël seeni carte électeur bu bis ba bu ñu xuloo bu ñu xeex nañu dem ci yar ak teggin ak dal seen carte ñoo ko moom ñu jox ko Macky Sall mu àggale yéeneem ci réew mi. ñun coalition Benno Bokk Yaakaar cekku nañ kon boog li may wax maa ngi lancé appel ak responsable yëpp ñu boole seen doole boole seen kattan ba nga xamante ne nii vraiment li nga xam ne jekku biñ jekku dara bañ koy yàq. ñun nag on travaille avec ñëpp xam nañ ko l'honorable Moustapha Cissé Lo nekk suñu kilifa mo ngi jox ay orientation bien sûr que nekku fi waaye loxoom moo ngi fi boosam mo ngi fi lepp tam ku deg bëccëg ci loolu la nekk pour ñu mëna gagner département Mbacké te yakana cette fois ci inshallah da ngeen gis loo leen mës a gis ndaxte euh, muy Touba muy Mbacké won nañ dina opposition bi xam nañ ay naxe la woon ay naxé mbaay kon bok dem nañ ba jotat seen xel da nañ voter massivement le président Macky Sall falaat ko fal ko au deux au premier tour ci le 24 février incha allah dana ko. ndax mu ngeen jàpp ne am na bilan bu mu war fii ci département bi. mais am nañ bilan bilan Macky Sall moom euh, li ma wax rek ku bañ gis bilan Macky Sall bul génn sa kër ndaxte tey jii rek képp koo xam ne yaa ngi jógee Dakar di ñëw Touba rek loolu bilan la waxuma la ak bi nga xam ne def na ko ak tamit université bi nga xam ne moom la bëgg a moom la sëñ bi taxawal ñëpp xam nañ ne nee na en tant que taalibe murid kenn du ci mën. te sumb yi encore sumb yi nga xam ne sumb ko fii ñëpp dégg nañ mooy mooy mu wax tey

amuñu bon problème bima woyé suñu supérieur ñu ne ñun duñ parce que nous ay républicains, lañ on donne le bon exemple on nañu wax nous ñun ñoo parti au pouvoir dañuy dañuy sommes mom mais defuñ ko dañ Nous organiser organiser ñun organiser ku dem ci mais du Il c'est a pas photo mobilisation yi duñ ben c'est c'est ay ñoo 14 ans 12 ans mais c'est des gens majeurs vaccinés ñoo fi nekk xam ne tey jii am nañ âge voté te danañ voté massivement la liste Benno Bokk Yaakaar. mboolem responsable yi ñun ñëpp ànd na nekk benn def benn dynamique ba initié ko il y a un mois un mois yooyu ñun ñëpp ànd nañ di diisoo di réunion di toog di waxtaan ba nga xam ne dëkk bi tas nañ ko mu nekk dix comité dix comité yooyu ñu tas ñun ñëpp kenn ku ne yor benn comité. maîtriser li nga xam ne mooy commune commune yooyu kon tey ñooñu ñoom ñooy ànd ñoom ñëpp ànd liggéey ci biir Touba ak département bi pour fas yéene indi président Macky Sall. président Macky Sall jaral nañu lu ne ñun ak Touba defal nañu lu ne fas nañu fay ko ndax moom rek lañ gëm moom lañ gëm programme moom lañ gëm yaroom moom lañ gëm am tegginam moom lañ gën mën liggéeyam. li nga xam ne moom la ñëpp di yaakaar bi am nañ ci yaakaar a baax baax te te sëñ Touba danañu ko jox bu soobee sëñ Touba Macky Sall morom wax dëgg yàlla bu ñu xoolee candidat yi ku am nga njëriñ waaye da leen a raw ba mu toogee ba tey sept ans yi li mu fi def amul benn président ci àdduna ci Sénégal bu ko def loolu yor na lay nit ñi dañoo soxor rek Macky nag moom daañu ko bañ rek. dañ ko bañ rek di ko di ko sosal def lu ne waaye Sénégal gi ku ku mawul gis nga li fi mënal dara parce que ñoom complot luñ ko jéemal sàkkale pexar lañ lañ bëgg waaye nag yéen a néeg la borom a cay fanaan tey jii ku fi teew rek bokk ci mouvance présidentielle sa xol sedd na lii nag bor la boo xamante ne Sénégalais yi dañ ko ameel président Macky Sall ndax ku ne xam na ne sept ans yi ñu ko fal tëddul rek di nelaw nekkul ci télé yi di coow nekkul ci mbedd yi di taxawalu dafa xam ne sénégalais yi dañoo am lu ñuy xaar ci moom biñ ko fale depuis 2012 ba léegi ci la nekk ku ne xam na ne tey ji Macky Sall aj na baar bi ba mu kawee kawee xaw ma luy xew ëllëg de waaye ku ñëw di nga am jafe-jafe ndax président Macky Sall yàlla baaxe na ko bi mu ñëwee dafa fekk réew mi ci jaxasoo waaye ci ak xarañam ak xam état. ci la taxaw li gënoon a nekk urgence Sénégal muy wàllu énergie da ci xeex man cee jot te jàpp naa ne kuy tabax réew foofu ngay tàmbalee tey jii ku ne xam na ne demukaay nekkatul jafe-jafe ubbi na yoon yi xàll na yoon yi tey ji président Macky Sall fexe na ba tey man nga xëyee Casamance ñëw añee ji Fuuta te loolu ku ne xam ne ne juróom-ñaari at ci ginnaaw sénégalais mënu ko woon te tey jii ak plan Sénégal émergent président feex na ba mu nekk réalité autoroute bii di Ila Touba nga xam tey li ma jàppee Dakar benn quartier laa ko jàppee ci biir Touba ndax en une nga mën a dem fa gën a sori ci biir Dakar loolu président Macky Sall rek moo ko man tey jii ku ne xam na ne wàllum social li ci président Macky Sall def amul benn président bu commencé def ci Sénégal la preuve bourse de sécurité familiale yi nim ko andee bu yàggul matul une semaine dolli nañu département bu Mbacké 16000 bénéficiaires te loolu président bu bëgg askanam président bu bëgg liggéeyal askanam moo tax ma ne bor lañ ko ameel ñun 24 février te incha allah dinañ ko fay ba wis président day gore waaye dina xam ne gënut a gore sénégalais yi. président Macky Sall mérité na lu la ëpp li sax Touba. mérité na sax lu ëpp lii parce que daf ko fi def ñun nag ay responsable lañ ànd ak moom depuis 2008 ba léegi mobiliser wu mobiliser suñu mbooloo def li ñu mën ak lu ñu mënul pour accueil bi populaire waaye lu li ci ginnaaw accueil bi sax moo ñu gënal dañoo bëgg dès le premier tour président Macky sàll gagné senegal gagné Touba loolu moom lañu bëgg. en nga Moustapha Cissé la moom gaynde la gaynde bawol la gaynde politique la comme d' habitude nam daan mobiliser rek bien que militeetul fii mais dafay am base affective comme ni mu koy waxee souvent base affective boobu nee nañ duñu ànd ku dul moom te ki la bëgg moo la sonal loolu moo waral lii tey te li ci kanam rawuli bët. journaliste ku jàng li nu li nu li nu suñu culture di dugg ci ñun di laaj lii sunu démb ñu koy tasaare bu njëkk tubaab yee koy def kon bu ngeen jàngee ba am jom di ko def ak nun loolu sunu fierté la li tax ma ñëw fi tey nag premièrement citoyen la te Sénégal laa dëkk waaye njaarim laa juddoo loolu moo tax ma ñëw ñu invité ma ndax njaarim gii laa juddoo fa la sama yaay gën a àddina fa sama baay gën a àddina te sama njaboot ñoom ñëpp seen baay fi la gën a suñu xel dal na bu baax a baax ndax Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma dafa ji nit di borom teraanga ju mag joo xam ne fonk président de la république Macky Sall wax dëgg yàlla mobilisation bi ñu gis mbooloo mi def ko dalal na suñu xel lool ci élection yi ñu jëm incha allahu taala te am nañ yaakaar ci ne Touba moom dañ koy gagné loolu daal mooy li nga xam ne gis nañ ko mouvement Jël nag mouvement la boo xam ne dafa lëkkale 313 personnes yoo xam ne ñoo jiite bureau bi di ay doomi Cheikh àndandoo moom nag ànd moom mboolem buy kër kilifa daañu fa dem daañu baatare mboolem bànkaar yi incha allahu taala nekk ci mboolem nuñ ko war a defee rek ngir am nit ñi bañ mën a wooteel président de la république incha allahu taala kon mouvement bi mi ngi nii àndandoo nekk benn àndandoo ngir def social àndandoo waaye ngir boolem mboolem ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi seexaloon seen i maam ñu àndandoo ci ginnaaw Cheikh Abdoulaye Mbacké Gaïndé Fatma incha allahu taala dal na xel dal na trop wax dëgg yàlla boo xoolee fii li fi li ci ëpp nekk ay xale ak ay jigéen loolu day dalal suñu xel bu baax a baax parce que li fi ñëw fii daanaka mën naan la genn wàll gi waa Touba la mobilisation bu am doole la def te wax dëgg yàlla boo xoolee nit ñi seen liggéey seen euh, bët dafa teg ci li président Macky def kon ñun suñu xol set na te suñu xel dal na am nañ yaakaar ne bu àggee bu àggee ci élection yi jàmm président Macky dina am 80 pour cent fii ci Touba loolu moom rafet nañ ko bu baax a baax wax dëgg yàlla ndax liggéey nañ ko fi yaakaar ni élection yi ñu jëm bu fi am lu mu néew néew 60 pour cent bu bon euh bo déggé gaay ñi wax nak da ngay japp ni mom moy lool waye nak euh, bala 24 bu soobé yalla di nga xam ni lepp dina leer di nga xam ni lepp dina leer bu soobé yalla bu 24 inshallah ci ngone euh lu way liggéey di nga ku liggéey rek di nga gagner bu soobé yalla xel dal na bu baaxa baax